dégg loolu léegi nag Ousmane Sonko l'informateur ñu dem critique yéen kaay ñëw ngi ci Jomaay Abdoulaye Diouf Sarr wax de moom lañ dénk suñu wàllum bànqaasu réew seen kaaraange lu ko aar tout Jomaay Faye est le seul garant des institutions. kii ku muy gaaral nii journal bi tey bind lii de nee na Ousmane Sonko day penc ndawi réew mi ci boppam la gësam. Ousmane Sonko yëngal na assemblée nationale la représentation nationale parce que yàlla Abdoulaye Diouf Sarr de nee na Amadou Ba nous lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle responsabilité Abdoulaye Diouf saar nag cadre la ak ka mën a wax ay tontu yu sax sap <laughs> dégg nga. abi moom nee na nee na bàyyi na la de loo ko def honorable loo def sëtu abi moom sëtu abi bu suugu loo ko def. ah man kooku dama xaw ma ko mu may bàyyi. am na kooku doon nuróole léegi de mbaadu loolu. Ah, ah, ah, am na koo ne xanaa moom surtout abi ñoo bokk fii. am na waaw waaw waaw waaw waaw. bu mu mer. dégg laa séen kaay ñëw ak ñun ci Abdou Mbow. nee ko vous ne reconnaissez pas le parlement. on ne reconnaît pas votre ministre waaw Abdou Mbow yow yow yow yaa moom assemblée. bilaay sama doom ji laa ruus rek waaye kon dinaa la wax luy tàkk te du fay tey. <laughs> luy tàkk te du fay. waaye yow Abdou Mbow moom moom nit ñi déggal muy wax Ousmane Sonko naan ko vous ne reconnaissez pas le parlement le parlement kay ni ñu koy reconnaître parlement bi moo reconnaîtrewul le poste du premier ministre. ça c'est vrai. ñàkkul reconnaître parlement bi de njabootam ak fa. bu bu ko reconnaître loon kon du fa yónni kenn di. problème bi mooy ñoom bañ ñuy delloo poste premier ministre dafa am ay articles yoo xam te ne dafa ànd ak ñoom te delloowuñ ko ca loolu mooy léegi nañu réglé loolu. il y a des articles inexistants. ah léegi nañu réglé loolu ba pare tonton Abdou réglé loolu. non dama ne tonton Abdou dafa war a xam ah, ne. tonton Abdou nag. ñoom ñoo xolli woon ñoom carte d'identité ak extrait de naissance premier ministre ba. ñoom ñoo reconnaître le premier ministre. premier ministre bi ñàkk leen a reconnaître de yéen yéen a reconnaître le premier ministre waaye léegi ñu ne kayitu juddoom bi indiwaat leen ko ci kër gi wala waaw loolu la. c'est que problème bi mooy volet un wu acte de naissance ba. moo nekkatul foofu te Ousmane Sonko. kii bi la yor extrait de naissance te extrait de naissance bu amee trois mois dootul valable léegi nañ indi volet un bi ngir mu a ñëw loolu gënu simple. li ma naqari yëpp ci atum ren bi assemblée moo ko teg bu may bi nii te dugguma ci biir sax sama fit bi daan rës sama mu ne dañoo sàcc dañoo dañoo jaay acte de naissance am. léegi ah. wooteel ci numéro commercial bi. wala wooteel ci numéro commercial bi bu fekkente ne dañ lay jël wala ñu boole la ak euh, ñoo waa tayeelu yi. dégg mhm. polémique autour de la déclaration de politique générale. Mhm. l' assemblée renvoie le gouvernement. Sonko mu def na soow de. dégg nga loolu Ama Baldé moom de dafa gaawal retraité wu retraité retraité wu kii retraité wu kii waaw le point kan moom moom journal bi bay jonn la maire dangu ñaan lii quotidien ñëw ak ñun ci <laughs> si waa lii quotidien moom bon journal la circulaire bii nga xam ne moom moo weddi Ousmane le premier ministre disait ne pas être au courant alors que c'est un de son gouvernement le ministre de l'intérieur ki a sorti une circulaire pour annoncer le déguerpissement des marchands ambulants nee na Ousmane dañ ko doon yuuxoo Colobane di xam naa ni réew mii le mandat yéeni kaay ñëw ak ñun ci condition de la femme mariée au Sénégal pourquoi devoir et pouvoir tout supporter dëgg la de sëyu Sénégal daa métti muñ ba dee ñoom jigéen ñi doo nga war a muñ de dangay sëy ak ñëpp boo waxee ne la muñal muñal yaay sëy defar leen condition de vie yu sëy yi waay ndax ñun ñu amagul ñu sawar a def mën ñu mën a ñeme am fit. Mm-hmm. no mais loolu loolu loolu loolu moom loolu moom léeg-léeg borom kër yi dañ ci am part de responsabilité. exactement mm-hmm. borom kër yi léeg-léeg dañ ci am part de responsabilité léeg-léeg nga indi ab soxna sa kër. Mm-hmm. naan ko non man waaw xoolal du ma la jëndee ñi ma bokk bàyyi ko mu ñibbi. exactement ba xam yow ñi nga bokkal dinañ la mën a lim la mën a. mais ku jële kër yaayam ak kër papaam yow. yaa ko mën a protéger sax loolu mooy jaadu yow say sœur. di dëggal raas sa jabar ngay yëkkati dépense bi di ko ko jox. muy jox sa jabar jox sa jabar. di xool da ko man de atam ba may def émission ñuy def loolu temb ba ca tës ba. sama aw baay bi nga xam ne mu ngi dund sax moom laa joxe woon exemple pour man ma war a jël sama dépense di ko jox may mën a jàll rek mu koy jox sama soxna. ma ne ko ay yaay nag kooku nag mu koy jéggal nag waaw bàyyi mënu laay jox dépense ba jóge fi 2013 ngeen nekk lu ëpp 50 ans <laughs> plus de 50 ans de dépense quotidienne. doom yo ca judd ci siraatal mustaqim màgg indi ay soxna war a jël yow dépense bi yaay di la ko jox ngay jox soxna yi. ah déedéet. Moussa Diallo loolu soxlawul sëy ku xam ko situation yi jigéen ñi dund ci biir néegu sëy kay soxlawul sëy. da koo jar. dëgg dëgg am nga xarit nga ah, ay nit yoo xamante ne dañuy sëy nga sa biir kër rek mën nga xam la. fa ah, bi tey non mais attends l'observateur ñëw ak ñun ci mu ne enquête choc sur les détectives privés au Sénégal ah plus de huit cent clients satisfaits entre deux mille vingt et un et mille vingt quatre ci ñetti at yi donc kon huit cent clients satisfaire nañ leen ah kon ay détective privé am na ci même réew. na de. toppal ma sama jëkkër toppal ma sama jabar. kon nag si réew <laughs> am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne. qui trouve. ci ëpp jigéen ñi la sama téléphone bi moo la ko joxoon yow suba. en tant góor nii. Mm-hmm. nga yendoog moom. non pas yendu ma jox la nii rek xool nii nii nii léegi nga gis ci lu la naqari. Mm-hmm. yow mi nga xamante ne nii sama rakk rek nga nii de di nga am loo naqari. waaw waxoon dama laaj nag madame yor ko wala nga yor téléphone madame. Mm. léegi léeg ku jigéen ci boppam yónnee message madame nga ne ko yow pourquoi kii di la yónnee lii. Mm. ku jigéen rek la di jigéen. waaw wala sama bàyyi ne ma yónnente alayhi salaatu wasalaam nee na moytu leen di bett seen i jabar parce que moom bu daan tukki jógee Farafenni di ñëw Dakar. sama baay bu yemee kër ngatan tan woo la ne maa ngi dugg ci frontière bi sëñ bi de bu dee da dox doxi bu yóbboo nga jege si ca frontière Farafenni ba di ñëw. Mhm. bu yegsee la sëñ dama doon jaay jaar si sa nijaay euh, dem dem yi laay jaar leen kon ne maa li ngay mën a dox yëpp jegeel sa kër ma ne ko waaw <laughs> déglu nga loolu yow mhm. bu ñëwee ba Fatick ne la maa ngi jaar sa kër nijaay Modou Alaaji de. Mhm. falaa bëgg a jullee nii tisbaar de maa ngi ñëw de sooy sam papa bu ñëwee ba postu caaroy ne la sëñ bi xaw ma foo mën a nekk waaye bu yóbboo nga jege de maa ngi postu caaroy de yónent loolu la santaane woon ci ni moytu leen di bett seeni soxna boo leen leen bettee mën ngeen leen fekkee ñu toogee noo xam ne du leen neex dégg mën ngeen leen fekk ñu toog ak toog ak koo xam ne yow du la neex même bu dee jigéen la waaye yow ngay nekk ci détective privé tamit lii tam du la diisal. góor ñi sax yow bu dee boo génnee dangay bëgg li xew ci kër gi yëpp nga koy xam. góor ni bañ a wër sax mooy gën wër. moo gën de. nappa sabu. ah. na waa daal. nekk ci nekk ñekk ji détective privé jot na la. waaw. dox na de. détective privé. l'observateur nañu gouvernement bi ak déguerpissement yi double jeu déggoo ma de mi ngi nii le ministre de l'intérieur moo ne nañ leen déguerpir gars yi ak ampliation premier ministre ba ñëw na sapeur pompier gouvernement assemblée nationale coup pour coup lii kurpeñ la lii njëg la. lii pour. delloo na ko ministre koom bi ministre kopparam nga la ko delloo. voilà. kii tonton Petre la de. lu mu wax euh, Petre Ndiaye del xool noo def mu def fi loo xam ne du neex Sonko nañ leen commencé ci kaw des députés de Benno vont supprimer l'article 87 de la constitution et la motion de censure bras de fer entre assemblée nationale et exécutif les députés de Benno veulent forcer Sonko à venir à l'assemblée nationale mbete ko yor seen doomu ñetti at il faudra 99 députés pour supprimer l'article 87 de la Constitution huit jours après le vote la loi est adoptée dégg nga loolu dégg nga loolu Diomaye Faye peut recourir au référendum très risqué pour freiner l'Assemblée nationale ban risqué yow sénégalais yëpp nee nañ nañ tas assemblée bi nga naan risqué déggal déguerpissement yi lu ma la waxoon noo def mu bind loo xam ne du neex nee na Ousmane Sonko appelé à la raison. noo def mu wax lu naqare waa nguur gi. ah man ma wax leen ko. wax naa leen ma ne leen ma ne leen bàyyi leen ma dindi Peder Ndiaye ci revue titre bi ngeen naan ma démocratie. journaux yëpp fi war a ne baax na. le quotidien yéen kaay nañu mi ngi. Sonko expose son netal la wax. série de déguerpissement à Colobane le PM face à des ambulants surexcités pour calmer la colère il demande l'assouplissement des opérations na nooy la mujj woote paa nag fi mu nekk nii démb wàcc nañ giri guy gi zos ñoom ñëpp xale yi dañ leen daaneel ma jambal jaañ day tey jàngatam bi nee na Sonko kan la respecté révélation yéeni kaay ñëw ak ñun ci crise entre l'exécutif et législatif des médiateurs entre en jeu. ñu ngi waxtaan. médiation am na. am na suñ benn émission boo xam ne lii ñuy bind moo ko yàq démb. loolu nag moom dinañ ci dellu siwaat surtout ab neen sànq da ne ko dafa nuróo Amadou Amadou Mame Diop. kan la ne loolu moo tax mu mel la. kan. surtout ab yeneen sànq da nga ne ko dafa nuróo ah, kii Amadou Mame Diop. mu ne kan moo doon Amadou Ba yow moom. yow yaa ko waaye déet waay waaye yaay sama le forum du justiciable bind na.